wax sargal bi ngeen tek suma loxo dina ko tek ci loxo ñaari ministre yi nga xamantene ñoo fi téwal le président de la République muy madame le ministre Assome Diatta bi nga yor xam ne yor commerce ak PME ak monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi yor santé et action sociale ma leen di wax na leen sargal ngeen ma waye président de la République ngeen sargal ndax président de la République limu ñu sas limu ñu sant moy jàppale sénégalais les sénégalais puissent le le développement économique du Sénégal C'est une émergence Le président de la République tegegum yëpp li ci gis le financement à travers la terre démocratiser la formation professionnelle démocratiser la formalisation indi leen ministère boo xamante ne moo yor économie sociale et solidaire pour gën a fexe ñu jàppale jigéen ñeeg góor ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci li ñu tuddee généralement le secteur informel. kon sargal bi dama koy teg ci ñaari loxo ministre yi bi teewal président teg ko ci loxo gouverneur ñu jébbal ko président de la République bi nga xamante ne di jiin njàng te mooy njàng kon sëriñ maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm waa REFOP di leen xamal ne COSEC mu ngi ci disposition wu sénégalais yëpp mais particulièrement